le bus bi ñoko gissano ñu àndoon ci ak Elage Malick Dieng euh, muy lu ama am solo lo xamantene euh, ay bus bu nek war nañ di ci farlu bu baax a baax a euh, parce que nak naafile yi c'est des bonus comme on le dit tout le temps mais c'est des bonus qui sont bénéfiques yoo xamantene excusez-moi amal jëriñ euh nit bu nek donc dañoo war diko def bu baax a baax merci beaucoup amis téléspectateurs yi nga xam ñu ngi Malikia TV il est 22h passé exactement de 17 minutes donc aujourd'hui euh, c'est une émission Académie Ramadan ce sera un plateau spécial alors euh, avec la complicité de la régie euh, Cécile Mao aussi, euh, boo leen ñu mënee wutal ay ay ay nit yoo xam téléphone bi comme ça nous avons ñu ay témoignages ci jëmm jooju euh, ce sera très important mais sànq tamit léegi nous aussi dañoo yëg. génnuk àdduna ki nga xamante ne mooy Mamadou Yatassay di di opérateur économique euh, chef d'entreprise nekkoon aussi candidat à l'élection présidentielle euh, man léegi laa ko gis bi ma ko gisee dama voilà xaw ma sax qu'est-ce qui voilà mais moom moom it ñu ngi koy jaale ay mbokkam bu baax a baax euh, amoon naa ay xarit yoo xamante ne moom lañ doon àndal maa ngi leen koy jaale bu baax a baax ku ci mel nii ñoom Boga Mbaye di leen ko jaale ñoom ñoom ci Mamadou Yatassay lañ doon nekk ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax di ko jaale ñi mu doon àndal yëpp di di di liggéey

Mhm. Moi, ma je l'ai connu après, après mes 30 ans. Hein. Ah, C'est vrai que j'ai 40 ans, mais je l'ai connu après mes 30 ans. Mhm, mhm. Euh, fii mais je l'ai connu. ngi donc euh, une personne très effacée. tellement. donc mu nekk loo xamante ne nag. Mhm. ay ay qualité la ci li nga xam ne mooy lislaam exactement Thierno Seydou. Mhm. comme ni nga ko waxee. Mhm. c'est-à-dire que nitu yàlla yi. daf ci am ñoo xam ne yàlla ci ay nitu yàlla am daf ci am nitu yàlla bu ci nekk dafa am fonction wu ci yónent yi xam nga yàlla dafa am yónent yoo xamante ni. maanaam mission bi bi nga xam ne moom la jox ñi mu ñi muy yónni envoyé yi. xam nañ ni am na cent vingt quatre mille envoyé. mooy. al anbiya n'est-ce pas Haj Malick noonu la léegi nag ci 124 millions yi nga xam ne yàlla sol na leen secret bi nga xam ne fees nañu dell li yàlla bëgg ñu transmettre ko ci message bi yëpp jox na leen ko mais ci biir ñooñu daf daf ci am ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu wax 313 yoo xam ne ñoom la ñu tuddee al mursalun ñoom la leen nag yéen wax leen effectivement ça veut dire que dafa am ñoo xam ne xam nañu secret bi mais dañoo noppi am na ñoo xamante ni ci biir ñooñu am na ñoo xam ne yàlla dafa leen wax jël leen message bi ngeen jàllale ko loolu aussi tamit noonu mu amee ci yonent yi mission boobu noonu la rogalaatee ba ci nitu yàlla yi xam nga al ulama warasatul anbiya effectivement euh, borom xam-xam yi ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy doon yonent yi maanaam ñoom ñooy héritage ci mission wu yonent yi te mission wu yonent yi jàngale la ñaar cerno ak defar doomu aadama léegi nag ci biir nitu yàlla yooyu nag nga xam ne ay ay ñoom ay awliya lañ mhm. ay ulamaaw lañ mhm. am nañu xam-xam mhm. ragal nañu yàlla sell nañ ñooñu ci seen biir lépp loo xamante ni yàlla bëgg def na ko ci doomu aadama pour mu nekk mujjadit mhm. maanaam mu nekk rénovateur defaraat penc mi mhm. am nañu yàlla tànn ci góor yàlla yooyu sol leen xam-xam yooyu yëpp mhm. sol leen secret bi ñoom ñu am boobu la doom oh, mais ci biir ñooñu nag daf ci am ñoo xam ni yàlla daf leen wax ni leen yéen da ngeen di fës di wax ak askan bi di di dem ci seen biir di leen fekk ci. Mhm. ñooñ ñooy ñi nga xam ne ñoo doon ñoom ñoo jël rôlu al mursalun mooy ñi yàlla yónni mais am na ci ñoo xam ne nag yàlla dafa leen sol mbir mu pare ñoom nag ñoom mission bi doo leen gis ci penc yi lu bari. doo leen gis ci comme ni nga ko waxee. Mhm. xam nga koo xam ne doomu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu te nga mhm. te ñu bëri bi ñu la découvrir yàggul. teewul li li doo doomu soxna di am. li wëlliwu yàlla di am mi ngi ci moom mhm. xam-xam bi fa tabarakallahu mi ngi ci woon ci moom ragal yàlla bi mi ngi woon ci moom mhm. waaye ñoom dafa am beneen mission boo xamante ni yàlla dafa ko sant ci ñu koy liggéey ci anam boo xamante ni maanaam ñoom euh, fesuñu mais ñu ngi liggéeyal yàlla ci suuf mhm. loolu ñooñu am na nit yàlla yu mel noonu am na tey jii boo génnee Hajj Maalik di nga daj ak benn nit muy muy xëccoo clando wala muy xëccoo charrette pour yéeg ci te fekk kooku lépp loo xamante ni nit yàlla am na ko pour defar àdduna bi mu ngi ci moom ne mm-hmm. li yàlla bëgg ci moom moom mooy mu nëbbu donc dafa am nit yàlla yoo xam ne dañu doon loolu ci moom kon Cheikh looloo tax nga war di def nànk ci nit ñi exactement moo tax yàlla di rafetal muamala bi exactement muamala muamala boobu ngay jëflante ak sa diggante ak nit ñi mm-hmm. yu muamala boobu danga nga ko war a sàmm jëflante mm-hmm. boobu ngay jëflante ak nit da ko war a sàmm di ko rafetal Hadj Malick Dieng bi nga romb mu sol jóginam di entraîné ndax xamoo kan la rek nga dajeeg moom wax ak moom waxu ñàkk teggin amaana loolu mën na bokk ci li lay gaañ parce que gis nga am na góor yàlla yoo xam ne Hadj mhm. bu bu événement amee ca gannaaw la ñuy toog. Mhm. la ñuy sol woyof na lool waaye ñoom rek la yàlla di déglu ci ci xew-xew. bu mën a am lu ñu wax rek moom la moom la yàlla di def. donc nit yàlla yi dafa ci am ñoo xamante ni loolu la ñu préféré. Mhm. Euh, sëñ Maam Ousmane radiyallahu anhu dafa bokkoon

dañ ko doon doxal ci wàllu tasawuf mooy li Thierno wax mooy mhm. suufi la woon mhm. suufi mhm. mooy comme ni ko ñëpp nekkee ci ay magam ak i rakkam mais moom dafa làmboo woon ay jikko yu tedd koo xamante ni d'abord première jikko bi mu làmboo woon moom mooy moom mooy moom moom mooy effacé wu tawaadoo tawaadoo bokk na ci mission euh, cëru yàlla yi nga xamante ni cër bi nga xam ne nit yàlla yi yi nga xam ne àgg nañ moom mooy seen première degré bu ñuy jàll mooy lan Moi, suis sa peu modestie. d'accord hmm. alors professeur. sa bob modestie on va juste. Euh, rappeler que pour le témoignage yi. Euh, képp koo xam rek hmm. euh, numéro de ngi noonu dinañ ko afficher ci écran bi. Hmm. mais aussi dinañ ko YouTube 77 296 14 03 77 296 14. 14 03 pour ñi nga xam ne bëgg nañ def ay témoignage ci ki nga xamante ne mooy euh, maam Ousmane Sy ibn Dabakh Malick nga toll woon fa am solo muy wàccee sa bopp muy wàccee sa bopp tawaadoo mhm. dëgg dëgg boo toogee ñoom da ngay am kersa xam nga léeg-léeg nga ci sa keppaaru sëriñ cerno nga dugg ak moom ak moom mu jëflante ak yow loo xam ne boo génnee yow da ngay am kersa parce que wàcce bi mu wàcce boppam war na ni nit rek laa parce que gis nga jikko boobu nitu yàlla su ko amul mënul mënul yóbbu kenn ci yàlla Hadj Malick nit lu mu bari bari bëri xam-xam lu mu am am cër ci yàlla su amul tawaadox su wàccul wàccu wàccewul boppam ba tolloog doomu aadama yi du leen mën a yóbbu ci yàlla xam nga al imaamul junaydi radiyallahu anhu xam nga imaamul junaydi ci tasawufam ci la mag ñi suñu tasawuf bii ñuy def ci la wékku tasawuf junaydi la wékku fi aqdil ashari wa fiqhi malik wa fi tariqatil junaydi saliki tariqatul junaydi boobu tasawuf boobu ci la tasawuf bii ñuy def te moo cheikh ak mag ñi fi ber seen tarixa yëpp ci tasawuf boobu lañ jël imaamul Junayd dafa tolloon ci benn degré boo xam ne nitu yàlla yi dañ ko jàppe woon maître waxuma euh, sama genre gi de nitu yàlla yi egg yi ñi nga xam ne egg nañ ba ñu nangul leen seen cër ñoom dañoo jàppee woon Junayd du maître imaamul Junayd moo nekkoon seen maître ba su rombaan di dem imaamul Junayd bu naan di romb dañ koy joxeñ naan xad wasala waaw bu rombee bu rombee keppaaru nitu yàlla yi nitu yàlla yi seen bopp ñoom ñoo koy joxeñ naan kii xad wasala egg na ci yàlla allahu akbar benn jour benn waay boo xam ne dafa dafa sob ci jaamu yàlla bëgg xam ku mel ne El Hadj Malick nga xam ni lu nitu yàlla di wax bëgg na koo découvrir mu ñëw ci moom xam nga am na ñoo xam te ne Hadj Malick dañu dañu lépp lu jëm ci yoonu yàlla maanaam duñ ci toléré bu ñu koy dégg rek dañu dem gëstu ji ko benn waaye dem ci moom ne ko mal wusul junee di lan mooy egg ci yàlla yow ñëpp ne nañu egg nga ci yàlla lan mooy egg ci yàlla yow dèjà dañu lay wax ni la egg nga si yàlla te man dama lay gis ci mbedd mi ngay doxantu yow kese di jëndi ci mburu di ay mburu et tout kon lan mooy egg ci yàlla mu ne ko al wusuulu egg ci yàlla mooy al awdatu ilal bidaaya allahu akbar mooy nga delluwaat ci bidaaya ba fa nga tàmbale woon fa nga ngay mhm. dellu parce que boo demee ba àgg fii ak dellu si waatoo doo mën a yóbbu jaamu yàlla yi moo tax sëriñ bi nga gis mu ñëw wàcc ci boppam c'est parce que kooku egg na ñëw bii mu ñëw pour deuxième fois pour yóbbu doomu aadama yi dañ ko gisoon ci sëriñ maam Ousmane si Dabba Hajj gisaan nañ ko bu ñu daan buñ ñu dajawaat ak moom ci ay programme gis tempsam yëpp ma sàgg dafa généreux woon ba ci boppam ba ci jëmmam oh. xam nga générosité yamul rek ci poche am na ñoo koo xamante ne mën na génne xaalisam jox la ko mais am na koo xam ne générosité am day dem ba day maanaam tempsam ak jëmmam mën na koo joxe ba ba sax mu mu jural ko lor ci wàllu jëmm <laughs> moom dafa bokkoon ci ci góor yàlla boobu donc kon premier jukko bi nga xam ne Thierno. Mhm. mooy mooy mooy mandargaal nitu yàlla yi nga xamante ni àgg nañ ci yàlla. Mhm. moom mooy at tawaadoo. Mhm. te jukko boobu gisoon nañ ko ci maam Ousmane. te loolu la xarwa la ñuy wax. parce que bu ñu nee la kuy sa ñu ne Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabba. xam nga am na xasida bu maam Abdou bind tawasul la Hadj Malick mu def yaa xayu yaa zal nga gis maam Abdou ni muy ni muy ni muy ni muy nekkee jaam. ni muy wàccee boppam di ñaan yàlla xam nga xam nga nitu yàlla yi xam nga Hadj ñun tey jii fi mu ne nii waxtu bi buñ Thierno Seydou buñ la ne woon mhm. heure bii nii loo ñaan yàlla mu nangu. Mhm. li ngay njëkk a ñaan mooy xaalis. wallaay mhm. bu dee sama genre gi. li nga am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar. maa ngi tur bi ak fooy wootee. maa ngi leen di Ibrahima Gueye laa du ñu ngi lay bisimilah. waaw maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu sëñ Malick. jërëjëf di nuyu sa Cheikh Ndiaye tam leen suivre bu baax. jërëjëf man man Ibrahima Gueye bu Seydil Xaaji Malick si la dee sama bopp. macha allah ndax bëgg Maodo. parce que sama sëriñ sama yaakaar sama soppe tey ak ëllëg. waaye dafa bëgg a def seede bu gàtt ci sëriñ Maam Ousmane si. ndax moo tudd sama taaw. est-ce que te bi ñu koy tudd moo dépassé bi jógee Fass ñëw ba yëmbal. est-ce que mhm. alhamdulilah téye liir bi. Mhm. mu ne ma loo ci nam ma ne ko ah amu ci baat sama sëriñ du toog may wax. Hmm. waaw ne ma kon naa ko tuddee yonent bi salaay salaam waaye maam Abdoulaye dafa waxoon ne yonent bi kenn du ko bis ne tey tuddee naa ko naa moo xam ne mu monte garaat ca kaw. keroog sëriñ moom Ousmane man maa dem ziar ko yàlla xam na ne lëkkeen bi laa ko waroon ziar par rapport laa koy ziar. ma ñëw toog mu ne ma fii ngay toog ma ne ko dégg naa si bi xaaju maa yi dafa bëggoon kat. kon il faut que ma jox la café. ndeysaan mu daal di rey ne man fii ngay toog ndox ak man. mu ne ma ana tout tànk bi ma ne mu ne na nga indi ma ñaanal ko man incha allah dana ñëw. ndax yaay suñu sëriñ yaay suñu yaakaar amuñu kuréel sa maam. fu Maodo xool la xool xooluñu leneen. Hmm. waaye muy koo xam nitu yàlla boo xam. man dama ko doon woo sax guddi waaye dama koy jot ndax jaamu yàllaam bi ci ëpp. Hmm. daanaka guddi gi moom saa yoo ko laalee sax da koy am. Hmm. muy nitu yàlla biir goo xamante ni foo ko dëkk passé. macha maam Ousmane si oyof na oyof goo xam sax boo ko xoolee rek. Mhm. da ngay xam ni kii nitu yàlla boo ko dee ñàkkee nitu yàlla. Mhm. yàlla may ko tamit mu yaatu yaatu goo xamante ni bari ko jéem wax kenn mënu ko déglu. Mhm. ñun ñëpp ñàkk man dama koy ziar tout le temps kër El Hadj Abdoulaye bi nekk fii ci Abass Ndao ndax au moins ku dul man mënu ma woon sax ci Maodo ndax Maodo beneen affaire la ci am. radiyallahu taala am. jërëjëf Guèye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax. amiin yàlla boole ko maam Seydil Hadji Malick. Ah, radiyallahu taala dem ci Cheikh naa Tidiane Chérif. ñu jàdd ci yonent bi sallallahu alayhi ba nga xam keroog moom moo tuddee Seydina moom it nii moom moo ko tuddee woon. ci kanam ñëpp toog yàlla xam na ko. ñu ngi koy ñaanal bu baax waaye ñàkk nañ ko rëy. sama confident la woon. ñàkk nañ ko réeree ku woyof ku yaatu ku baax bu mënoon a jàmm yàlla ci discrétion comme ni ko Oustaz Cheikh jàngalee. jërëjëf jërëjëf ñun daal ñu ngi koy jaal mbooloo mi. jërëjëf jërëjëf di ñaanal ci dara yoon bi salaay salaam. yal na gisee maamam. amiin boole ko Cheikh yóbbu ko ci yoon bi salaay salaam. waaye ñàkk nañ ko rëy Cheikh. jërëjëf ñàkk nañ ko rëy Oustaz Seydou Nour ñàkk nañ ko rëy Oustaz Malick. jërëjëf jërëjëf man El Hadj Malick jërëm suñu bu baax ndax ni muy jàngee alxuraan daf leen touché lool. Ah, jërëjëf jërëjëf waaw maa ngi leen di ziar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di bëgg ñu ngi leen di suñu bu baax. kontaan nañ bu bëgg la. kontaan nañ jërëjëf dafa maîtriser fiqh macha allahu taala te dama koy topp bu baax. macha allahu taala waaye ñu ngi koy ñaan baax a baax. amiin yéen leen ñaan ngeen yàgg. jërëjëf amiin amiin amiin loolu ngeen amiin yaa ñu bokk dañ nekk taalib. amiin incha allah incha allah ñu sant si rek. ñu ngi topp ci amuñu baat bëgguñu dara xool ñu kenn ku dul maw kay jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup Ibrahima Gueye depuis yëmbal macha allah jërëjëf jërëjëf merci beaucoup alors jërëjëf ci témoignage bu am solo boobu mhm. mooy li ñuy wax tout le temps rek suñu sëriñ saa ñu leen soxlaa mhm. ñu ñëw teewe te nag sëriñ loolu boo ko mënta am ci sëriñ booy woo nga seeti leneen du sëriñ këriñ la këriñ la këriñ la waaw jeex na ah, ah. <laughs> sëriñ xam nga Thierno Seydou ah. damay bàyyi sax professeur eggali fi mu nekkoon dafa am solo la waaye mais euh, gis nga sëriñ mhm. kenn ko lekk kenn ko naan déedéet te kenn ku nekk yaa ko tànnal sa bopp yaa dem xool ki la doy mhm. nga tànnal ko sa bopp def ko sa gidd religieux mhm. pour mu gën a leer mhm. xam nga am ñoo xam ne baatu sëriñ sax mën naa di si ñoom mais kii gidd la euh, professeur dëgg la guide la ki nga xam ne moo lay guide jëmale la ci yoonu yàlla yaa ayuha alladina amanu taqu llaha wabtagu ilayhi alwasila yàlla dafa ratax exactement kenn mënu fa dem wala boo demee ba yegg doo xam ban position nga fay toogee faw am ku téye ci sa loxo kondom kondom yi ak yow ba ci kanamu yàlla jébbal la yàlla mhm. pour nga xam yàlla kooku mën nañu tuddee sëriñ mhm. sëriñ nag qualité yi Ibrahim wax mii léegi fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu mhm. di ko ziyaara moom it di ko bégee ndax booy bégee maalikiya maalikiya ngi lay bégee dégg nga ni mu ko waxee léegi Thierno Saïd fa tabaarakallaahu ndax ñun suñu existence fii téléspectateurs yi la ah, bu ñu noppi woon seetaan télé bi léegi ñu coupé télé bi amatuñ fi njëriñ ñu jëlaat keneen euh, bismillah allo asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah aleykum salaam wa rahmatullah sëriñ ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax euh, man la El El Hadji Ndaw di wootee fan. maa ngi wootee fii ci Sindia. bisimilah El Hadji commune bu Mbour. ci Sindia. Sindia waaw. Sindia waaw. d' accord xam nañu waaw bisimilah. bisimilah ah maa leen di jaaree fi ñu bokk. jërëjëf. Mm, jërëjëf. di ko di ko jaaree suñu xalifa bi. Mm-hmm. yàlla yàlla yërëm la yàlla xaaral ko aljanna. amiin amiin amiin incha allah. dara ci lu mu doon def ci àddina. amiin incha allah amiin incha allah. ñoom yàlla na ko gënal fi mu jógee. amiin amiin amiin. ndax wane na kooku soppeeku si naaw nga sama. sallallahu alayhi wa sallam. dañ ko jaale yéen bu baax di ko jaale suñu sëriñ Seydou. jërëjëf jërëjëf. ak Maodo ñëw jaale waa waa um, umma islamique bi yëpp maa leen koy jaale. jërëjëf di ñaan. allo. allo waa ñu ngi lay dégg waaw. waaw d'accord fii la may déglu. allo. allo yéen a may déglu waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah kooka la ak fooy wootee. waaw man la Abdoulaye. mu waaw. waaw. bisimilah waaw. ñu ngi lay dégg waaw. allo. waaw ñu ngi lay dégg waaw. waaleykum salaam. maa ngi a baax. te Abdoulaye Mbow maa ngi mm-hmm. waaw Abdoulaye ñu ngi dégg waaw. est que du déglu ak ak téléphone. Abdoulaye da déglu ci sa téléphone bul bul déglu ci télé bi. waaw ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ak Dame Thiaw lu muy lu muy xate wallaay ak nit nit ñi di bëre mhm. ak ak ak ak nit ñi di di ci kër gi mhm. ma jóg génn woo ko téléphone mhm. ak ni kër gi xatee moom woo ma waxtaan ak man ndeysaan ndeysaan wax na lu bëri wallaay ndeysaan seen jikko la wallaay ñoo koy def yàlla xam na ko El Hadj Malick toog papaam foo mu tudd est-ce que macha allah ci doom aar. dëgg la. moom moo tudd tudd sama rakk sama papa xam nañu bu baax a baax sama wóolu papa Dieng. ndey ndeysaan parce que. waaye dañuy gisee dañuy déggante. wallaay ndeysaan waaye yàlla émission bi def naa ko si chaque jour maa ngi suivre. jërëjëf jërëjëf. billahi beneen bi ñëpp nit ñi moom. macha allah ay gis loolu. Mhm. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. jërëjëf Ndaw jërëjëf merci beaucoup euh, merci beaucoup jërëjëf. Euh, di leen wu bu baax yéen ñëpp. Mhm. Euh, qualité yi mu wax nii yëpp moo moo nekk ci ñoom macha allah. Mhm. Euh, boo ñëwee dañuy jël seen temps waxtaan ak yow. Mhm. daanaka bu dee da ngaa yàkkamti sax boo fa demee moom. li ma naan yenn saa yi bu ñuy ñibbi bu ñu nee gars yi dañu dem tàggu maraw ma leen déet. boo tàggoo maraw boo moytuwul deux heures ngay ñibbi de. waaw <laughs> ah, dem rek. <laughs> ndeysaan wallay ndeysaan <laughs> boo dee gars yi bu ñu nee dañu dem tàggu ji marabu. bii passé bi ñu demee di tàggu marabu dañoo dañoo mujjee fanaan Tiwaawan. da ngay seet loolu wala. dañoo pare ñu ne ñun dañoo dem tëdd rek ñu baraan ba suba. maa la ko wax euh, tellement loolu seen jikko la professeur. Mhm. Euh, ñu bàyyi professeur mu continuer tuuti après ñu jëlaat ay appel d' accord d' accord. Mhm. donc Thierno Hadj hmm. xam nga mhm. sëriñ ñun ñoo ko tuddee sëriñ mais dafa am nit nit benn doomu aadama boo xam ne dafa am rôle bu muy def ak jaam bi parce kooku noonu noo ko après noo ko tuddee baax na nga tuddee ko sëriñ baax moom lay joué. ma mhm. tuddee ko cheikh bi. ma mhm. tuddee ko ak nu mu mënti tudd rek. Mhm. mais role bi mu am mooy doomu aadama bi comme li nga wax léegi kenn du ko lekk kenn du ko kenn du ko naan. li mbokk mi léegi wax lu mu xat-xat. boo ko woowee di nga ko jot mu gindi la. loolu moom mooy rôle sëriñ. donc nag sëñ Maam Ousmane ci loolu la nekkoon donc nag jikko bi nga xamante ni moom la nitu yàlla yu mag yi làmboo nga xam ne mooy seen première euh, carte identité moom mooy ak tawaadoo wàcc sa wàcc sa bopp. donc maam Ousmane jukko boobu lañ ko ñëpp xamee parce que tawaadu boobu moo tax tey ji ñu bari xamuñu ko. Mhm. parce que tey bu ñu la nee kan mooy sa waajur nga ne Cheikh Alhaji Abdoulaye Dabakh ak maam Abdou fi mu toll ci àdduna. mais su fekkoon ni kii amul tawaadu boobu am na lu mu bëgg ci àdduna. Mhm. kon tey ñëpp xam nañ ko wala fu ne yaa ngi ko fay dégg. Mhm. ci muy def yoo xamante ni ak wala ut do ut mbooloo. wala ut Euh, lu mu am ci jaam yi mhm. mais loolu nekkul li nga xamante ni moom mooy moom mooy ndonoom mhm. kon ndono li mu doon ci Cheikh Alhaaji Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu mooy première jikko boobu maa ngi doon wax xasida boobu yaa xayu yaasal jalaali bi maam Abdou Taalif mhm. Hajji Malik oh. Cerno ci laa doon wax léegi tombé appel dugg mooy tey jii bu ñu la ni woon Cerno moment bi loo ñaan yàlla nangu ko bu dee sama genre gi moom xaalis ngay ñaan mooy na xaalis bi bari rek boo xoolee seen tawassulaat yi ñuy def yëpp moo tax ñoom dañoo boole ñaan ci seen daanaka boo xoolee nit yàlla yëpp seen ay mbind li ci ëpp tawassulaat def ci am doole mooy ay ñaan daf tawassul ci seen diggante ak seen borom mm-hmm. boo xoolee bu ñu dee ñaan yàlla ba toll ci xaal boo xam ne yëg nañu ni yàlla ubbi na bunt yi mm-hmm. bu leen yàlla ne lan ngeen bëgg li ñu njëkk ñaan mooy yàlla yàlla nga jéggal ñu suñuy bàkkaar mm-hmm.